bëggee jot ci vidéo yu am yi bàyyi fii ci sama diine TV da ñëw bés ñu bind sabonné soo noppee nga daal di bi mooy waral benn njëriñ du loro luy toj liggéey ci nit <coughs> euh, dangay wut juróom-ñaari xobi siddéem ak juróom-ñaari xeer asafrula juróom-ñaari xobi siddéem laa wax set xobu siddéem garabu siddéem yaakaar naa ne xam ngeen ko nga wut ci juróom-ñaari xob nga wut ñaari xeer doo ko dëbbee kuur nag dañ koy moytu da ngay wut ñaari xeer nga tëj ko ba mu mokk nga boole kook juróom-ñaari aayatul kursi yi sangoo ko juróom-ñaari fan liggéey bu mas sa nekk ci sa yaram day toj mbokk yi xam nga lu gën a gaaw ci toj liggéey nga fekk ko togg ba noppi nga jël cin la cin la nit ko doon toggee ak ñam bu mu ci mën di togg ci àddina baax na bu yàkkee ci saasi rek balaa cin lee sedd nga def ci ndox daal di bind sóoratu yaasiin jàmb ko ca ndox mooma sangoo ko muy kort muy sëf muy liggéey muy cat muy umu muy lu man di doon ci xeetu liggéey yu bon yi boo ko defee ci saasi day toj ba pare dafay beleende sa yaram dal leen ak jàmm ci seen seen bii di sama diine tv so beugé du jot ci vidéo yu am jariñ ñi bayiko fi ci sem eh. bi da ngay ñew bëss fi ñu bind s'abonner so noppé nga dal di bëss bi nga dal di activer bi ci kaw moy tax ben ñariñ du la rob